journaliste yi mu jaaxal ni ba ñu tuddee ko le phénomène de l'Ansar Siteu nekk lu ndaw ñëw ci làmb am coow lu nga xam ne ñi ko jiitu ci làmb gën ko ci yàgg amuñu ko ci mbër yi gën a populaire ci làmb la bokk loolu nag c'est pas apparu ex nihilo maanaam du dafa ñëw rek ci làmb ji mbooloo moomu topp ko lu mu liggéey la démb tey soog a ñëw ci mbappat d'abord ba ñëw ci arène wane ci jom fulla ak fayda ci biir bu gàtt nga xam ni sos mi mu daan Papa Sow daan ko rek loolu doy na pour boole leen mais bu dul woon mbër mu def ay preuve bu dul woon mbër mu am coow li mu am amaana Papa Sow du du ko may chance bi mu bi ko may parce que bëre nag dañuy wax ne euh, garab la ci kaw la ñuy fekkante moom ci biir bu gàtt keroog digganteem ak sos man damaa yuuxu ndax tàmbali ba mu ko rimbax ba léegi mi ngi des ci xel yi digganteem Sarko xam ngeen na mu ca mu daan Pape Mor Lo imposé imposé daan Naaru Sauvage daan Rouge daan euh, euh, euh, Zos 3 daan Bébé Ama daan Mbay Zos daan ki nga xam ne moo di ñaax ñaka la ñaka naka naka naka ak maanaam seeraas mi ngi noonu alaaji ngay jërëjëf kon tey nekk na champion bu nga xam ne ci biir làmb am na fu mu teg bëgg faa egg waaye papa day faral di wax ne man du escalier kenn ku bëgg dem fu sori wala nga ñeme wala nga bëgg akara da ngay ñeme kaani parce que man dama wex xat moo tax combat la bu nga xam ne jaay na boppam présenté na boppam parce que papa ku ko xam xam ne moom c'est un lutteur offensif c'est un lutteur explosif ku xam Siteu xam ne Baye Fall la lu ci kanamam yaakaar na ni dalaa war a ramasser dem ci leneen lu ko mën a may may na ko kon Pape Abdou combat bi nga tëgg tubaarkàlla macha allah combat gënu ko neex te yéen ñaar da ngeen a am défi bu mag parce que fii làmb toll tey ak jafe am. yéen ngeen nekk ténor yi nga xam ne yéen a fi am combat bu tax nit ñi di wax kon yéen yéen a war a relever le défi yéen a war a créer bi yéen war a delloo si waat waa ak ñi nga xam ne dañoo bàyyi làmb yéen a leen war a delloo ci làmb moo tax bés la bu nga xam ne lu ngeen ci def ci promotion doyul lu ngeen ci def ci fulla ak fayda doyul lu ngeen ci def pour bëggal amateur yi doyul parce que yéen caabi làmb ji mi ngi ci seen loxo. daal doomu Fass lañu ba kenn mën maa génne Fass xëy na mën nga ma génne rek ci association wala structure mais ma maay Fass place boobu maay Fass structure mën nañu ci gën a woo doomu Fass yëpp président Fass wala Fass bu tàppe HLM Fass bi dafa ne un ba vingt six yoo Cambérène Kaolack Kajoor fu si bëgg a poisson nekk rek ñu leen woo ñu préparé seen incha allah. licence bi ban kii moo ci nekk ban association te licence moom dañ la naan ASC Diamaguène wala ASC Sampaté wala ASC <laughs> nangam licence bi dina am ASC xanaa dina am équipe ban structure la licence bi di nekk. en tout cas daal dinaa yóbbu laa ko jël bàyyi demal demal tout seul dinaa bëri di ñaan yàlla may ma incha allah. Aladji Gaye dafa précis. bëri nga ak euh, Sa Thiès bëri ak Gouye Gui euh, ban expérience nga tiré ci ñaari défaite yooyu pour mu ci euh, maanaam am profit sa diggante ak Papa Sow ban jàngat nga def ci ñaari défaite yooyu. waaw li ma ci wax mooy jàng naa ci expérience bu bëri yokk na ma tamit lu bëri si laa moom tamit ma xam lu bëri mais kon nekkuma mbër boo xam ne dama ñëw si làmb ñu daan ma man dama jógee si combat ak Sa Thiès am ci défaite dama manqué expérience ma jógee sama combat boobu jëlaat si beneen combat ci làmb victoire maanaam Zoss sama combat man ak guy bi ñu bëgg nañ si bàyyi xel tey bu ñu yàgg làmb ñooy wax làmb dafa am crise kon man xanaa suma bëri loolu kon làmb lay dee xanaa bu jëm bu leen fàtte sama bopp quatre heures sama bopp quatre heures sama bopp luñ sama bopp damay sacrifier lépp loolu pour sauver làmb pour làmb am baaw pour làmb am njariñ dem bëre te bëre bi lépp maa def mais ndam yoruma ko mu doon miir mais lépp dama def ngir làmb te pourtant ñi fa nekkoon nekk ay nitu làmb xam nañ sama bopp dafa ñi fa nekkoon nekkaloon CNG xam nañ sama boobu dafa toj Pape Abdou Fall bi moo tëggoon combat bi te ñu bëri xam nañ sama boobu dafa toj mais kenn ñëwul génn leen doo bëri mais dama sëbe làmb dama sëbe làmb làmb jooju maa def maa bëre ma ne seen si man làmb pour ñu kon aw ma lu ma ciy wax lu mu sant si yàlla félicité ki ma daanoon loolu rek laay wax mais dama bëgg chaque jour ñuy xool ni lan mooy njëriñam ak lan mooy thank you. thème bu territoire yow loolu xam nga ne depuis 92 thème bu territoire yow mooy maa ngi doon wàcce kàddu bi dañu Papa Sow yàgg sax am ngeen sànq mu rëy da ngeen di ko bëgg sport bu ngeen góorgóorlu mu jàppale leen yaa ngi dégg bu baax ñu góorgóorlu mu jàppale leen ñu jël ko ànd ak perte yóbbu ko pire phase amul poste nag waaye ku taxaw phase ne man ña lekk ma si ñàkk peeroo. wallaay ko rew ku ci regroupement Gris Bordeaux bi passé Gris Bordeaux Balla Gaye 2 xëy na Gris Bordeaux xaalis exiwul si moom mais biñ daalee ci ginnaaw da ko jox bëri na de da ko jox Moussa Gueye bëri na de mosul jàppale bër am na fi Gris Bordeaux campagne mu bëre jox na ko trois cent mille litres engrais jox bi ko chèque suuf chèque bàyyi foofu noonu su doo ko bërëbët baaxul lu amul preuve rek baaxul man coow li muy bëri bëri bëri yëpp keroog man ma waxee keroog ci si sawaay yi pour ñëwee keroog dafa mel ne deux jours dama wax lu ma wax amul loo wax danga am ko maanaam nga ànd ak bu dee keroog mosul fan faas père nag su may ngee toog na sama tudd mu ngi tudd bay ngee toog na mu noonu toog mosul faa ngay toog mu ne ko bay ngee mosuma laa faral man séeréer laa faraloon mosul faa ngay mosuma laa faral séeréer laa faraloon ne ko Modou Lo ñoom ñuy toog nii mosuma naa faral mais da mos a daw sa champion waaye Modou Lo tey doo takk ba takk ndax man sama doom yi laa Fass sama Ousa Ousa mu ñëw Père Fass fu mu far faraa far amatuma mbër samay doom laa am te bu dee Père mosul faral Fass di ci dugal Mor Ndiaye Mor Ndiaye kilifa la Mor Ndiaye ak Père ba jàkk na toog Mor Ndiaye xam ni Père c'était avec les séeréer te bu ñëwee ba tey affaire tool fii ñuy waxee noonu. da ngay nekk gorse booy dee soo ko def booy dee na soo ko def kon dara jarul nga yàq gën a tàmm Moustapha Gueye nag bugguma sori ndax maa ngi seet ci jabaram jaraaf ak ay doom ñoom xale ñoom kii ne ñoom Mouhamed ñoom Aziz ma taxawoon nag bu ma taxaw de boo koy wax day tas de wallaay Aliou bu ma taxaw wax bu ma taxaw wax bu ma taxaw wax dañu noppi man noppi naa dañu noppi merci. mais tey boo ko laajee journaliste question kan la daan ci la wax kon nañ ko dem wëri xam kan la waxal ko baax na waxal ko champion mais kii nii man moom suñu làmb bu ci nit seetu violence man ku ma waxu dama lay xuri ba nga dàgg man mais kii nekkul nit ki waxu doomu aadama kii làmb ko indi te ma toog doomu aadama kii dañuy bëree dañuy neexal dañuy def bu si doomu aadama seetu ñaaw lu dul làmb ju neex te bu ma bu ci doomu aadama seetu benn wax boo xam ne xalaat ne wax bu ñaaw la wala leneen na samay terme da ngeen déglu commencement ba fin du ma mës a dépassé doomu aadama te du ma mës a wax loo xam ne day yàq mais nag damay neexal làmb ji la fi kon du ne ñëpp ñu ngi bokk ci structure PAP Ndiaye yoo xam ne moom laay wax sama jabar bi koy Astu Fall mu nekkoon Sud FM Saint-Louis di magu Dieng Mati Fall papaam bokk ak sama yaay benn bàyyi moo ma njëkk a boole ak Mamadou Ibra Kane ba muy ngénte cappal loo am Astu Fall mu nga fànni franco wax ma qualité yi nekk ci Mamadou Ibra Kane wax ma lépp ci moom ki nga xam ne mooy di dee bourse bu ngeen demee ba caawee géej na ngeen dégg lu koy wax Dior Kare maam Dior Kare moom mooy maam bu dégg ci le secteur des enseignants kii aw ma lu ma koy posé question ndax ñoom ñaar ñëpp dama leen a xam am koo xam ne daf maa teg am nattu ci làmb mu tax ba guddi réeru ma am koo xam ne man naa ko yar bala moo tëdd dina wax ak man kon aw ma lu ma leen di posé tout ce qui est clair n'a pas besoin d'explication kii mën naa ko yar moom Abou Dia c'est vrai je suis le père de Koulibaly numéro 2 kii dafa taxaw bàyyi ma doon jógee États-Unis ñëw na ma kaay mu dem ma doon papa saw mu daal man ko ak nan dem ñu ñëw ñu taxaw ñoom ñaar signature de contrat papa saw ne ko dinaa dox sa kaw dinaa la duma dinaa la daal ma ne ko dalee na mu ne ma loolu lay xaar ñu dem mu taxaw di ko xaar papa saw di ko nelawal di ko nelawal di ko nelawal ba mu perdre connaissance ñu song ko te yëgu ko kii ban question laa koy posé kii ma wax la daal. kay daal soo bëggee ma wax la kii daal. kii comme moom ak Baye Mandione. Ngagne Ndiaye moo ko njëkk a taxawal ci plateau 2STV bi ma ne ko Ngagne Ndiaye mooy def nii mu ne ma sii fii combat mën na fee taxaw. Bathie Seras ak Modou Lo taxaw ñu génn ne ko soo ma jéemee man. kuy daal kii lan lay wax ci moom kii lan laa mën a wax ci moom eh combat bi du woon bii de kii kii la woon ak Ama Baldé yow laay wax le journaliste kii la woon ak Ama Baldé mais xanaa fii jàpp jiw doo xaale jàpp. Ama Baldé moo daan Papa Sow kii toppat Ama Baldé di ko sëkkatal di ko sëkkatal xanaa xamoo ne avance su Ama Baldé ak Tapha Tine moom lañ dox Papa Sow ak Siteu xamuloo loolu. gëstuwaatal lamb. gëstuwaatal lamb. maa ngi lay ki lañ lay déggee Pape Abdou Fall waaye su demee diggante Ndando mu dem diggante Koulibaly Ndiaye ak Kondiak mu dem diggante Kër Cheikh Marouba foofa moom du fa dégg Pape Abdou Fall bii gën la fay dégg wala Fane ak moom maa ngi lay waaw dafa mënoon a football am doole ci biir waaw moom Pape Abdou Fall dafa mënoon a football. oh oh. ñoom ñaar ngeen jàkkaarloo li ñaare daanaan kii jóge Lamsar kii jóge Parcelles kii di le piment de l'arène kii di le phénomène de Lamsar si Papa Sow gis nga leen nii kenn ku ne xàcc na croisé. xabaar da nga ñaar